ndax euh, Aïcha jigéen dañ ko war a dañ ko war a mettre en valeur boo nekkee sa góor dafa la war a wan preuve d'amour góor ñi dañoo war a déglu chanson boobu toujours ndax euh, nit bu la jaaralee rek di nga ko bëggal te da ko ko war a wan hmm? te da ko ko war a wan waaw Aïcha damaa bëgg ñu dugg ci kii tey moom xam naa di ngeen ne mais kii Aïcha la man la kay tey kii dugg <laughs> c'est ni soo nga dugg <laughs> sànq bi ñuy ñëwee. Kébé dafa laaj matin midi soir. <laughs> Kébé yaa fi tudd matin midi soir mooy lan. Kébé bii xam naa ko xam affaire yi la. <laughs> Aïcha dama laa invité nga indil ma bale. waaw <laughs> euh, Aïcha Nison Diasso pharmacie la ñun lépp lu lépp lu jëm ci charme jigéen am nañ ci astuce. wéral Sénégal ba mu daj loolu doo ko gis. bale nga laal de bale. ba ñun lépp lañuy ñuy laal raaba ngi fi xanaa gisoo raaba. nañ nañ nañ kaa ci bale bi ba pare bale bi sew na sew boo xam ni ah ba pare lii dafa mel ni <laughs> kiiwu dugub bi la <laughs> kiiwu dugub bi. waaye Aïcha boo wax loo <laughs> Aïcha. Kébé maa dem def tey kër ga gis ma dam indi bale. Hmm. nga ne <laughs> hmm. parce que bale bi day indi jàmm. jàmm lay andi. lépp lu ñuy jaay c'est pour que kër gi am jàmm. kër gi am ambiance. ni son këru bànneex. lii lan mooy particularité. lii particularité premier primo noble la. noble macha allah. noob sa jëkkër. noob sa jëkkër macha allah. loo ko wax mu def. am na fi. <laughs> bale bi nu muy demee kay bale bi dafa am noo koy bale. noo koy bale dafa am noo koy bale non du ma xool loolu ah, ok am bale bi. Hmm. soo ko deful comme li mu war bépp góor bu ci dox boo ko balee yow. Hmm. su nii boo ko balee woon fii bépp góor bu ci dox da lay man mi jaar. waaw ah. kamara. waaw. Ah. <laughs> saa tey mu neex de. <laughs> madame la. Hmm. bii bokk na ci sunu base macha allah. yàlla macha allah affaire bi nu mu tuutee noonu la am solo. Aïcha bii dafay day mel ni kuy rééduquer l'homme ça rééduque rééduque l'homme da koy yar da koy yar. da koy dalal même bu dee c'est un homme problématique euh, un homme compliqué. yenn gis ku bëri allah. koo xam ne loo ko wax mu xëpp ci kaay. waaw macha allah da koy dalal Aïcha ñun samay client ay VIP lañ. ndax produit yi ngay gis nii day génne valeur jigéen. Hmm. day tax euh, nga nekk la reine de ta maison day tax nga nekk la princesse. li ma lay laaj euh, nit mës ci yow. Hmm. exposer la benn problème par hmm. exemple. Euh, nga proposer ko solution mu dem am ci problème. musul am je touche du bois. musul problème des fois lañ lay exposer. ñu ngi ci koy ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax. du ci man du ci produit loolu sunu borom la mais képp ku ñëw si ñun macha allah tu seras satisfaite. yan yan problème lañ lay exposé souvent. acha problème yi bëri na xam nga sëy sëy yi fu mu ne ni metti na sëy yi yëngu na sëy yi compliqué na. limal ma si ñett. problème d'infidélité. ci góor wala ci jigéen. xanaa ci góor. yéen a doy waar yéen yéen yéen yéen yéen <laughs> des fois nga am jëkkër bu infidèle. infidèle trop même te il le cache même pas les femmes suuf dans ce pays am gel wan sa jabar ni ki damay doxaan maa tey mais loolu c'est pas du respect Aïcha à part produit yëpp góor ñi ak ñi ma ko sañ a wax am ñoo xamante ni soo xalaatee ni que buggoo kuy souffriloo sa rakk buggoo kuy souffriloo sa mag bul souffriloo rakku jàmbur celle-là tout abandonné pour toi. te eh yow man su ma ñëwee ci yow ne sama jëkkër dafa infidèle lan nga mën ci loolu. bëri na day toog du demati. loo may wax nii. <laughs> dama koy téye. bëri na. lii ay fer la de wala. waaw fer la. waaw eh. ah, fer bi non seulement day resserrer vagin bi mos ngaa gis fer buy resserrer vagin. madame Thioune foo jëlee lii. samay maam ñoo ko ma ko jox. say maam am nga fit de. waaw. Hmm. mais jigéen dem fit jigéen dem fit yow nu mu tudd Aïcha. lii araw la araw loo ko mooñee. <laughs> man mooñu moo ko de maa ma ko mooñ. <laughs> damay foo rek <laughs> loo mooñee lii. bii bii astuce bi pour góor ñi nga xamante ni se fâche vite. Hmm. góor ñi tàng pourtant jigéen yow yaa koy naan. Ah soo ko naanee après boo seeyee ak moom da gis day dal. du mu tàng tàng tàng. waaw. yéen a ngeen di bandi lu rek yéen doo leen ay bandi de. moo yow Aïcha nañ delloo cosaan. non mais non mais en fait man je pense que tey li tax problème yu bari mooy que dañuy fàtte démb. dañoo bàyyi suñu culture jël culture jàmbur. fàtte suñu maam yi lu ñu daan utiliser. Mhm. ah euh, cosaan lu tax moo am solo. Aïcha nous avons la meilleure culture mooy la culture africaine mm-hmm. ñun lépp la ñu am man damay jaay ba jaay ay tubaab. tubaab. di jaay ay naar. tubaab bi mu ñëwee lu ñu ci lii ñoom. xanaa ah, tubaab du am problème lu neex. <laughs> parce que ñoo ko gëm. Ah <laughs> ñoom dañoo bàyyi seen yëf ñëw ñëw. jël suñu yëf mais suñu yëf c'est la suñu yëf yi c'est la bu dee problème sécheresse vaginale nga am tu seras lubrifié euh, di am plaisir sa jëkkër dina am plaisir en même temps waa ji dalay nopp loolu lubrifiant pharmacie am nañ ko amuñu ko amuñu ko yaa ngi wax léegi def nga santé. Mhm. xam naa ni am nga ay notion ci li nga xamante ni moo di santé. Mhm. mais da nga daf la jaral nga bàyyi sa sa métier euh, d'infirmière pour ñëw nekk ci carrément li nga xamante ni moo di. Mhm. Euh, suñu cosaan ci affaire tradition. est-ce que des fois il arrive que ngay liggéey ak ñoom les pharmaciens. oui des bëri na sax. Mm. comme cas de d'infection sécheresse vaginale. même avec de sages-femmes. Ah bon? Des fois, il y a des sages-femmes qui me mettent en rapport avec le, le, leur malade en cas d'infection mhm. grave. grave. Mhm. gis nga bii infection nu mu grave grave grave n'importe quel type d'infection boo ko jëlee en quatre jours tu seras guéri. quatre jours quatre jours. am na solo. Mhm. ayca ñu ñëwaat ci playlist jox ma sa troisième chanson préférée. Coumba Gawlo. Coumba ban cee wayam bu sëy bi méttee xamal la da nga kuul. da nga kuul da nga kuul ayca chanson ñu dem seetaan ko léegi léegi dikkaat ci plateau bi. Hmm.